faraqat xasida yoo xam ne ñetti xaaj ba tey yeneen yu bokkul ak xaaj ñetti yoon xasida bi nga xam ne sëñ bi daf ko bind ngir ñi di ko jàng ca kaw nit ñi di ko dégg nga xam ne jàng ki koy dégg ci noppam ak béréb bi ñu koy jàngee yépp dañoo am njëggal yoo xam ne ba mu ko bindee ba nag moog boroomam rek la daf koo suuxal ci géej gi bëggul bëtu nit dal ci mu am ay secret yoo xam nit ñi waruñu cee dal mu am ay benn benn yoo xam ne facc na ba nit ñi gis ko am xasida yoo xam ne am na secret yu ca nekk diis na ñëpp àttanu ko waaye ci kaw dappetoo ko di ko jàngalu bari la nit ki am na ñoo xam ne mën nañoo toog liirub ñetti weer jàng xasida gu mu doon toogati diirub ñetti weer noonu am ñoo xam ne attanuñu ñaari yoon ci at mi am ñoo xam ne mën nañ ko jàng bis bu nekk ñu ngi ay ci nit ki bu fekkente ne du da nga cee am ndigal yooyu ci sa bopp mën ngaa xam ndax lii attan ko wala déet boo ko jàngee ay fan rek yu tegloo da nga xam yow lan nga te war a kii waaye du ca yi nii loo xam ne dañ ne bu ko kenn jàng yi sëñ bi génn yëpp jàngalu na ko waaye nag ak yi nitam ña koy mën a jàng ak ña koy war a jàng ñi nga xam ne daal moom daf koo fësal tasaare ko ñu ko ay jër boo kii mooy yi ci gën a bari daanaka yëpp rek ku ne mën nga koo jàng waxtu wu nekk daa ngeen dégg ñu naan xasida ahmadou yedda ali googu salaatu rabbi ma asalaami ala habibi xayr naan boo koy jàng garab yi dañ lay ñaanal nga faatu ndax ñu gaaw a faatu ndax buñ la suulee ndax seeni reen mu ci sa barke. waaye. loolu yëpp mu ngi aju ci nit ki nga xam ne moom yéene la laab amul yéene ju rafet yéene la xam dara ku sàggan la mu di ko jàng mel ne koy fooye am na ci xam ne day fàdde day fàdde nit ki noonu danga la waaye lu waaw fikra moom it dafa am ay qawaid ak i nuum fikra mooy xalam la ko mag ñi daan mooy xalaat toog ci xalaat ci rek dafa am fu mu war a tàmbalee xalaat wax nañ ne ñii benn saa nga xalaat ko moo ëpp doole at kii am at di jaamu rek nga toog benn saa xalaat ëpp ko tuyaaba ñii ne jaamu ñeen fukki at ñii ne sëñ jaxam ci misaal dina ibadatu dahri ila xulfin zukin la wax jaamu jamono mu ndax ci xalaat la yonte yàlla ibrahima alayhi salatu wasalaam amee woon wóolu gi mu wóolu ba nekk xar